waaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Hadj Babacar delloo naa la nuyoo bi ak ziar jërëjëf oustaz ñu ànd ak yow ci yóbbalu bés bi waaw Hadj Babacar yóbbal bi tey dafay ñëw rek ci loo xamante ni comme niñ ko yàlla jàngalee ci alquran boo fa mooy far bàkkaar indi naataange ci dund nit mooy jéggalu sa borom moo am benn xeetu jéggalu bu nga xamante ni bi dafa ànd ak ñaan ubbeeku ak wërsëg wu yaatu ci kër moo tax soo ko manee so julle suba boko waxe waxee yoon julli timis wax ko ñetti yoon sa kër dana neex da nga yàlla dina la faral sa bakkaar ba nopi wërsëg dina dugg ci bir kër gi moy nga wax allahumma agfir li zambi allahumma agfir li zambi wa wassi li fi dari wa wassi li fi dari wa barik li fi rizqi ma bamtul lako ko allahumma agfir li dambi ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي nga wax ko ñetti yoon ci suba gi wax ko ñetti yoon ci ngoon gi yàlla jéggal la say bàkkaar te ko sa bàkkaar effacé wu wërsëg wi yaatu xaaji Babacar jërëjëf oustaz Mor ba ëllëg gëneenuk yóbbal ci RFM matin